ku nekk sa de sa sant di maître Madické Niang nga candidat à l'élection présidentielle coalition Madické 2019 man <coughs> ak samay chef de parti ñi Aïe, chef de mouvement politique ñu romb ñaar fukki kuréel ñëw di ko jàppale ibnu ma Madické mi ngi lay nuyu bu baax ñu nit ñi ngi lay nuyu bu baax di la félicité yaag sa responsable yi ñu fi fekk yépp di ci ràññee sama mbokkum jorof mi colonel anam a ah, dem na

xanaa dañ ciy jéem a dolli tuuti rek ci li mu wax ndaxte man mii ni mu ko waxee dama nekkoon candidat à la candidature à l'élection présidentielle ñépp xam nañ ne réew mi war naa ko mën a yor ndax fi ma jaar ndaxte pendant plus de quarante ans ou quarante ans man Ablaye Wade moom a tàggat xawma keneen lu dul moom damay def première 1974 ñu bëri ci yéen juddooguñ laa commencé di ànd ak moom ba léegi moom rek laa mos a wax moom rek laa mos a tudd li may def ci politique lépp moom ma ko jàngal. Il dogal ba jamono ñew ma tassé fa ak maître diké les années 1990 ba légui yalla bolé ñuy and ma ngi koy ñu complice des fois sax di di compléter góor gi ci ñu réew mi ma jaar yépp xam administration parce que je au cadre de l'administration quand même 12 ans ministre wër Sénégal wër àdduna su ma demee ba bay li ma jàppoon war naa mën a xàmmee nag ki nga xam ne moo gën la ñuy wax ca mbaar ma njulli yi naan demoon naa cuuru teenu bay buur njaay nag ñu bare niroo sàmm ma la ràññee kon war naa mën a ràññee ma ne ah comme man maa njëkk a woote ne opposition nangeen def pacte pour jéem a wàññi candidature yu nekk benn wala ngeen def pôle yu xam ne yam na il faut que ma wane exemple nag mooy bu sa réew soxla war ngaa mën a fàtte sa bopp ngir sa njëriñu réew ma ne kon nag danaa xool ñi nga xam ne ñëpp dañoo yëkkati seen loxo ma gis kan moo ci tànneef bi gën ma commencé ca njumboor yi mooy Macky Sall moom jarul sori dama gis ne dafa naye naye naye nay ba mbub mi sol day dagg loxo bi ba pare ñépp mànkoo ne yàq na réew mi jaay doole dictature lu ma neex laay def jaay leen doole ba fab rakkam samp ko fii mu nekk seen maire te mun leen ci dara ma ne kon kooku nañ ko éliminer moom mënul bokk